dem nga ba xale bi nangu say vues ci kàttanu yàlla nag xale bi da lay détrôné yéen faj naa seen mer te dóoruma ko laaluma ko kalaas maa la ko dàq téeméeri junni yoon bu dee wax lu ñaaw maa la ko dàq téeméeri junni yoon bu dee fëgg sa dënn maa la dàq fëgg sama dënn te ragaluma te xam nga xam nga ne la ànduma kenn koo yaakaar yàlla la yaakaar man sama bopp bii laa jël dénku ko yàlla suñu borom te mënuloo ma fiftinu Mali ànduma ak dang ànduma ak dara ñii may liggéeyandoo ñoom laa ànd te démb ñoom ñoo taxaw protéger ma moytu la moytu ma sëtu walliw ngay waxal nii moytu ma génnal ci man boo bëggee boo bëggee noppalu balaa ngaa gën a yàqule yàqule nga ba pare moo tax nga toog ci direct bi di am looy expliquer ragaluma mbedd mi heure bu ma ci génn heure bu ma neexee damay génn dox su ma paree nii damay wàcc dem jëndi ndékki wàññil ma lii ma ne mi su paree léegi damay dox bu la neexee ñëwal damay dox dem génn ndékki ma xool xam dëkk bi amul loi yaakaaruma la génne nga sa kaamin waat yow li ngay wax lépp gëmoo ko xam nga lan moo bon lan moo gën bon